من الزكاة rendi xato mu mayyisin mooy dogu aji xàmmee xam xàmmee boo xam ne yu naa ci xar dala mën a séyante mu dagg tabaamal xulqoomi matu put ga wala wada ji ak ñaari sijji yu mag yu ko seq mu nuy rendi kon da ngay dagg waaye doo xoj ba mu sedd te kii dagg day fekk nit koo xam ne kii dana daganal jullit mu mën ko bu doon ko góor jullit dana mën a téentee moom dafa dana dagan maanaam nekkul majeur kooku nag mooy kon jullit wala kitaab yi mu rend mu dagg ba sijji dagg dagg itam ñaari sijji yi nga xam ne ñooy rob bi wala jéem loolu lañ ci dee rendi nga xam ne kon deret day sotti ko deret bi ñu tuddee ak damul mas foo deret jooju bi nga xam ne sobe la dañ la laal dañ ko war a raxas ndax mu sobe la ñooy nag minal muqaddami ci kanamu baat bi nga bañ koo rendi ca gannaaw ci biir ci kanam ci laa rax tamit te doo yëkkati itam jumtuwaay bi ñu koy rendee muy paaka la wala laj wala lu mu doon bu xasee tàmbali dara dagg na ci rek dootoo yëkkati boobu muy dee doo yëkkati bi laa rax tamit duggee yëkkati xam la kanam ci la nga mat ga te rendi woo ba mu daj ba mu dagg te put yi ak ñaari si dig yooyu dég loolu amul yëkkati di delloo waat dégg nga wa fi naxari ci maanaam wa lay daganal lekk nag ci naxari ci loj mu ni taanun ak dëbb la ci ba tey ko xàmmee koo xam ne ci cere ak jullit mën na seen ñoom ñaar ñëpp nag di ñuy yëfi ànd ak yéene bi ñu yëfee bi la di labbati ci potax waaw bi labbati ci potax dégg mooy ci baat ci put bi rek wa sustira mu ni siwalee sot na ba tey ay gan itam alit ci faaw doyloo bi ñu feste xoomi ci genn wàllu put bi wala wada jéem ak ñaari ci ñooñu mu ne siiwal nañu ne dana doy fekkee na put bi lépp daggul waaye li ci ëpp ba nga xam ne dana dana doy pour mu dee dagg na ak ñaari ci ñoom siiwale nañu siiwale nañu تكفير التكفير لا يساوي تكفير الصراط آه متذكر من وإن سامريا دون يهود سامري لو أنتم mooy ñooñu nga xam ne dañoo nanguwuñu yonent yi leen jiitu yëpp daf ci am ñu ñu wedd nangu nañu yonent maanaam sànni bi nangu nañu yonent Muusa ak Haaruun ak Yuusa maanaam ñaandoon ak moom daal suñu bokkoon ak moom daal waaye mbokkam nangu nañu kooku mu ne ba tey daañu leen considéré comme ci laaj bi aw majusiyan wala mu nekk majus mu nekk waa Faris woon mu njëkk mooy ci lañu mala yi ñoom ñi waaw ñu ngi def wala bind ko ci def waaw mooy ñoom da def bind لو كان مجرم قوم يعبدون النار وقالوا ان العالم اله الا النور وظلمه النور وظلمه فالنور الى الخير وظلمه الى الشر فقالوا تاثير المدينه وان على تراب تنصر وينك المجوس بو خامل تنصر دفا نصران الذي bàyyi ne jóge na ca majus ga dal di dugg ci diine nasaraan wala mu dugg ci diine yahud yi nga xam ne gëm nañu yonent yi leen jiitu yëpp yonent yahud yëpp daañu def ci mu yahud moom moo mu ngi dalee ci yonent yàlla yaquba yonent yàlla yaquba ak doom yooyu ci dañu ci te bi mooy isaa yi mu ne wala ba xam ren bi ñu ne fii ñeel bopp mustaxillahu la mu dagan la mu daganal la ñu li ñu daganal moom ci moom daal fekkee ne kitaab yi boobu dafa ren li moo ñu waxoon ne suñu borom di saal ñu ko waxoon booyee jiitu ak lu leen daal jafaa'u kitaab yi nit yi maanaam daf koo ren di bopp mi ak ren di dafa ren di julli julli di ko wax xamul ne bëgg na ko doon di bagal waaye su ko def ko rendil boppam ci ñi nga xam ne yoon bi ñu tëral nga xam ne ci lay dagale ci moom pour mu mun ko lekk. ñu fexe la ko ñu ñu dagal loom. li way insaamir yéen comme ko di si doon son ko di saamir yi aw majus yéen ala majus yi ak yi mooy mu nga xam ne mooy maanaam yi ak mooy nasara waa xam ne nasara la wa tabax tam ren bi ñu si ñëw ñu saxal la ko ñu ak ñoom way akala doonte dafay lekk itam almay ko ci nekk moom kat dana lekk nekk waaye nag rend na rend bi nga xam ne ñoom moom la ñu turam ci seen yoon dañu war ko mën a lekk mu rendil ko boppam ci yoon woowu suñ la ñaar ci sàkku suñ la neexam dafa fàdduwul demul rend ko fee yàq ko rend ko foofu ñoom bu fekkee doo xam ginnaaw dina lekk nekk mën na ko xoj ci tagg baat wala mu dajee ko ñoom waaye laa tëdd yi yinde di caa génne xaleel masalan xaleel boo xamee ne xàmmeewul wala mu xàmmee irtadda waaye dafa murtad maanaam dafa génn ci lislaam fekk ci doon baat jooju dama fi dégg du dagal am na am na am na wér na moo ko affaire xaleel dafa ne wamar atum fi darxiha kazalik wa fihima karahatin limaani ci sàrt nag bu fekkente ne ko xam moo ko taxawu ne ko defal ñuy waxal bismillah ñu jubale ko danga ko wax bismillah ndagg yëkkatiwul loxoom ba def ñu dagg ñaari wala ji ñooñu dagat na waaye imam malik si sugóor ji la yore conseil waaw fekkente ne xam nga fàdd nañu ñoom dafa ne liñ yëg waaye moom ñu ne la ñuy ree ñu ne la ñuy ree li leen sax am na si ñoo xam ne kenn xamul duñu dem am na si ñoo xam ne duñu ko am na lii de penseur ci ci ay kilo ay merci parce que nekk am na si tubaab yi xam naa ci yéen daal dëgg-dëgg moo tax jullit bi faral nañu sonn trop ñu seen abattoiru bopp ñu réew Europe yi ndax léegi ñoom dañu amul dara ci sell ndax fi ñu nekk ñoom diine bi nga xam ne sax mën nañu leen koy méngale naan moom la ñu ay nasaraan lañu wala juif yi diine bi ngeen di méngale naan ay yahut lañu sax daanaka seen sell lañu jiital ci diine bi léegi daanaka dañuy naan rek ren bi kooku moom du dara na dee rek waaw maako ñu te kon nag dafa am laam boo xam ne mooy dagg ci bi te ñu wax bismillah ñu yéene ko mu dagg bañ a dagg bopp bu daggee bopp moom ci ren bi kon ren bi bopp ba dagg teewul daañu ko def waaye nag lu ñaaw nga def nga ci borom bi taala lu ñaaw nga def waaw wajib xim ak loo xam ne dañ ko war a indi maanaam ak wax ñu fan mi ci xëram loolu dëkk yooyu yooyu ci gën a jeex yooyu te dañuy rab yi dañuy jaamu rab yi dañuy reyal dañuy ak it ma wax bëgg xëy bi daal indi na ko defee bëgg xëy bi daal ñu rende daal ma ma tuddee alal na si bi mooy nga def ni fan mi xëram bi xam nga yéen dañuy considéré ne jarat na suñu considéré ne moo ci xóo wala lu bokk ci xóo ndax gis nañ ne bu ñu xojee dara ba mu dee suñ ko reyee ba suñ suuf deret kon su dee am rek deret am tuuti ñun ñu daal di dem ba jàpp ni deret mooy roo xam nga roo ñoom ñu fekkee ne ñoom day day dimbalante tey day yem tey loolu ñu ñu ñu àndale maanaam àndale rab yi seen xalaat rendi génn dem askan nag def nañ ko bu dagan lekk aw ay xam nañ wala loo xam ne duñu aji dagan ci ñoom la doon suñu ko ñun sabata ndam sax na nag xaraam lan ba tey du ko ay da koy dagal wa illa bu ñu fekkee ne alquran wala xadis bu leer xaraam na ko wa bay in ak jaay di jaay kuy jaay ba tey looloo gi yéefar yée yée yii di yii ñeel ay dem moom loo xam daal ci mbiri diineem la mu ñëw luyee sa sa dara ci mbiri diineem wala mu jënd ko te di ko jëfandikoo ci mbiri diineem waaleykum salaam moom it bi ñu sib la ndax dañu ñoo digal ñu wuuteeg ñoom parce que daaw siraatal mustaqim daaw siraatal mustaqim muxaalafatu asxaabil jahim ñu di jëfoo asxaabil jahim dañoo sant ñu wuuteeg ñoom kon lépp lu jëm ci seen diine dañ leen ci dimbali bu dee lu jëm ci seen aada dañu seet acte bi bu dee li sere daganal wala lu mu yalamal wala lu mu fit wala lu mu araam ñu jàpp seen noonu seen jëmul seen mbiri diine naka noonu wa wa tasamm si sama ñu xam rin naka noonu nga di ko lebal leb léegi njëgu sàngara day jënd sàngara nga xam ne xel kii sàngara la bëgg amul lu mu ko jëndee mu ñoo leb la yow yaa ko dañ koy dimbali kon ci mooy ko waaw ndax dimbali bi nga ko ci dimbali maanaam wees bu ko weefalal te nga xam ne dafi naan waaw wees na waaye gannaaw moom waaw ndax dimbali bi nga ko ci dimbali moom daf lay delloo sa xaalis daf la daf ko leb rek waaye dana la fay li mu koy jëfandikoo moom daanaka moom comme aadaam la comme nga waral nañu war waxuma sax cofeel wala di waaye waral nañu nit ki war yaa ko billaay su fekkee ne yaayam wala baayam day naan yónni ko mu dem jëndati ko mu boobu dimbali moom moo gën a fort ci ci waaye comme xàq ji ci nekk moo ëpp doole dañu sant la ko di nag bu fekkente ne ci dëkk nga wala mas la adduna wala yooyu sib nañu daal lépp lu jëm ci diine wala lu jëm ci lu xaraam nga dindi ko ci maanaam waaw waaw waaw waaw waaw waaw xëy waaw waaw waaw li tax ñu ne woo de ba jurul wàllu di in kaana faasiqin wa in kaana mushrikiin al jannatu taxta aqdaamihim bi mahaati gannaaw wa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsaanan gannaaw alxuraan daf ci insisté ñu ne kon lépp loo xam ne lii lu koy noppal la rek lu dul mu digal nag mooy nga def ko wala mu sant la loo xam ne yàlla waaw mooy loolu rek yàlla tere la mu ko ñu waxee ne ci lox bari sax la taat li maxluq fi maasiyatil xaaliq ba ma maasiya bokk na dimbali ci maasiya maasiya moo gën a foor maanaam nit ki sant la ne la léegi tey naanal sàngara si moo gën a foor nga dimbali ko ci lu mu ko naane gannaaw moom daf koy def bu fekkente ne yéefar la boobu leer na ndax moom fasul ne lu araam la bu dee yéefar bu dee jullit la day mooy moom xam na ne araam na ba noppi ñu ko def léegi nag bu fekkente ne keneen la ku dul waajur yoon may la nga dimbali ko ci biir néew néew foofu yéefar bi ak jullit bi ñoo kenn waruloo dimbali fenn ci biir néew waajur bi nag xàq yi waajur bi dafa dafa diir ba nga xam ne fa ngay demee ba doo ko topp mel na tey muy yéefar mu dee mu dee amul kenn koo xam ne ci ñu bokk ci ñoom diineem la ñu ñoo xam ne daañu taxaw def ci li ci war ci suul wala sànni tey boobaa ñàkk pexe la ci yow nga dem suul ko dundal bu fekkee ne ñu bokkal diin daañu ko taxaw araam na nga dem ko araam na nga dem ko te gis ne kon bi ñuy dund xàqam mu ëpp doole bu dee bés bu ñu ndax mu ngi dund lépp lu mu responsable bi mooy rek war nga koo def ndax suñu borom dafa nit tuddee rek boppam ak jaamum mu ñu waree ñoom la ci def ci duggaan xaq bi nag dëgg na moo waral taxaw ñu ne kenn du topp kenn ci mooy waaye nag bu fekkee ne moom lii daf koy jëfe te jëfe nga te du la ci yóbbaale li mu aajowoo nga defal ko ko war na ci war waaw nga nga dem nga dem jënd ko indi ah ñooy waaw ndax li mu aajowoo daf ko aajowoo lu mu aajowoo la war nga cee taxaw waaye bu ci def lenn yow bu ko def waaye lu mu aajowoo rek donte ak mooy la te te ci boppam lay yem képp te du def taat bi jëm ci yow wala jëm ci beneen julli wala leneen rek war nga ko ñaar yi daal waruloo waruloo warula koo sant nga def ko bu dee mooy ci warul itam mooy koo xam ne day wëlbatiku ci yow wala wëlbatiku ci keneen ci bu la ko santee doo ko def lu dul loolu nag donte dafa xaraam it te moom affaire boppam la moom fekkee ne lott na ci bu la ko santee حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده يعني بس إيش moom façon boo xam ne moo tax ñu ragal ko tiit ci ñàkk ko matal lu néew néew ci loo xam ne du la lor foofu la ñu déggee lu mu la sant rek te du ne la néew la muyal du itam moom muy mooy boo xam ne bu ko defee moom dana jalgati ci keneen ñu ngi doon rek waar waa waa foqaaw ci foofu rek lañ ko jëlee ñu ñu ci yàlla insisté ci ci alxuraan daanaka insisté ko ci duñu jublu rek waaw loolu si loolu si daal. li li mu yaatu li dugg ci moo di war na ci yow gërëm bi dafa war waajib la fépp nekkul lu lay lor wala lu yàq sa diine wala lu lay jox bàkkaar rek war lu seet bi war bu fekkoon ne daf ne la tey naanal sàngara kooku war gi dootu am ndax daf lay mooy lool te laa taat li ñu wax loo ci marché xaalis bu fekkoon itam daf lay sant loo xam ne daf lay lor ci sa diine wala ci sa yaram du la wax waaye ci nii lay sant loo xam ne lor yëpp ci moom lay dem te aajo woon ko te sant na la ko te du mooy birru bi day dal di ñëw ndax yàlla insiste na ci ba nga xam ne rek ragal nañu bañ cee def lenn loo xam ne li jëmee ci jëneen diine fekkonte ne lu jëm ci mbiru diineem la araam fekkente ne loo xam ne ak mooy la ci yow araam la loo ko digalee doo ko def waaye bu fekkente ne loo xam ne lii loolu benn bi lu ci moom moom ak mooy boppam la te sant na ko te sant na la toujours ndax biir moom ak dénkaane dafay lu diis te su morom daf koo diisal diis boo xam ne gannaaw loo jaamu jaamu yàlla te nga te te defuloo birroom doo dem àjjana xam dafa fort trop bokk na ci alkabair bàkkaar yi gën a màgg ko xul waalidayni nit bokk na ñu alkabair te te xul waalidayni bokk na ci sant na nga bañ loo mën te du la lor sant la ko nga bañ boo seetee am na benn téere boo xam ne kabair yi rek moo ko tax a kitaabul kabair yi bokkul wàll bi ñu su mborom insiste na ba tàyyi ci xàq juréel ba bu la santee loo xam ne lii du mooy yàlla te du la lor te ci boppam leen aadaam daf koy jëfandikoo moom yoon benn da nga def ko mooy lor mu ni nag léegi wa tasallufi samani xamrin nga xam nga kii bi mën lañ koo ci rek ndax mooy bi di boppam rek lay dellu bu la wóoree nag ne ci kat day naan dafay jëndee sàngal te bu ko naanee gën a mën na ci daañ ay nit mën na cee rëy wala yor na gànnaay dana araam ci yow nga lebal ko daa seet daf koy jënd rek naan dem yoonam dootewu daf seen dara araam la ci biir ko waaye araam la waaye kon nag jigéen kon ci loo xam ne bu jëlee ci ak ak waa bi dafa gën a fi dootu am boo bay in bii la ak bii waaye du caa jéeni jàpp ko day xam daa am ci fayu ndax daganu la moom kon maanaam ah dugg na foofu sax maanaam waaw laa ci laa la de waaw kon kon kon si ko ñeel jullit mu jël njëgu sànqra comme ça an jër bu kii la ko amee loon daf ko amee bor ah ne ko maa ngi jaay jarle bu fekk sànqra la jaay jaay jarle gis na kooku koy jëla wax na soqal wala yow comme ñu yeewal ci li mu am ndax moom alalam xam ni mu koy am ndax respecté wul tere islam am ay ndigal ci naa ngir noonu maanaam nga liggéeyal leen ñu fay la seen xaalis bi ñu lay fayee sa xaq rek la ñuy seet sa xaq ji yow gannaaw li nga def yow dagan na lim la jox suñ ko mën a jëlee dagan na ah sëriñ si ci réew mi amoon nañu ay kii kii am na jamono yoo xam ne masalan nee ñu sëñ Tuubaa boo ko liggéey ci ci tubaab yi boo ko joxee dara mu delloo la ko mag ñi amoon ci ñoo xam ne dañuy est-ce que lekk xaalis fonctionnaire dagam na wala dagam ñu dow ci biir ñoom suñ ci amoon ci ki sàkka ak suñ ci amee ñaaw njort mooy ne jajji ñoom dañuy jaay sàngara wala dañuy jaay maam wala luñ tere dañuy fab alali jàmbur fab alali jàmbur maanaam ni ñuy jëlee xaalis boobu bokk lépp ñoom seen bopp lañu am ci banque nga xam ne ñoo ko moom lay fay impôt ñu di la teg maanaam ay ay patente ak war-war yoo xam ne am na ci yoo xam ne cere ànd nga ko am ci yoo xam ne cere ànd nga alal jooju bu ñu ko dajalee ñu nag xës ba du fukk maanaam daan jël daal ak su doole na sab ba tax na am na ñu daan watandi sax ci boo xamee ne jumaa wala jàkka maire yi joxe na subvention bi nga xamee ne nag seetaat nañu ne loolu alal yi du ñoom seen alal alal yi réew mi ci waa réew mi lañ koy jëlee mu war a delluwaat ci ci ci réew ñaareel bi ñu ne itam tubaab bi li muy jël ci alal li réew mi lew na ko ndax dafa jaay deretam ndax ñoom lii seen lay ci coloniser réew moo ne dañu leen di civiliser am na paaru dëgg du lépp du woon dëgg ndax bi nga xam ne tubaab bi ñëwagul ci kenn léeg-léeg kenn du mën a béy sa tool ndax naar yi wala ñeneen sedd yi dañ la koy fekk jàpp la dem jaay jaay comme jaam wala ñu jàpp sa doom dem jaay su feebar buy wàlle amee xamuñu hôpital xamuñu isolement isolé ko ba du wàll kenn wala bu wéree ba tey mën a wàlle ñu wax la mise en quarantaine yëpp amuñu ci woon xamuñu woon tali yu ci bari ñu ko mën ñu ne gannaaw kon alal réew mi ñuy jël dañ koy dolliwaat ci réew mi noonu nga xam ne tali bi ni ñu ko defaree ni ñuy defaree hôpital bi di ci faj ak garab yi ñuy faje boobu wut naa léegi garab yëpp booba kenn du bind ordonnance te garab yëpp dañ koy maye noonu itam la ñuy ci loolu la ñuy fayee fonctionnaire bi nga xam ne itam mooy liggéey ngir réew mi mën a dox ñu ngi leen yéen ñi gis ne am yéen ñu am ak ragal tuuti ci alali tubaab bi bu leen jaar ci kaw tali yi kon bu leen làmp yi leeral ñu leen ñu am daal coow yi coow yu bari wante mujj nañu d'accord ci ne baax dañ nga xam ne di fekk bëri moom daal ndax xam nga al war al war dafa am ak al awra al awra mooy ki nga xam ne day wàcc lu dagan sax xëy na ci anam boobu la ko sëriñ bi daan def di fekk benn moxtaar te naa ñu naan naaw nee ñu seen jikko yi liggéey ci tubaab bi kat ci la fay doo ko jox di la delloo danañ ko delloo mu ne man de danaa ko jox di la te moo ko delloo daal di fa benn bu ñu ko mag ci tànkama mu daal di الحمد لله كي هذا وعاء حوى تمرا لحضرتكم ردي حين يهدى قد نهى الناهي هدية أبتغي وجه الإله بها فالأمر أفضله ما كان لله وليس مستوي تخفي دلوه نيون نال موكو دخه دوما دلو لي كي دال لي نك لب مودي نه جليت دوار نه جلو سام ci bir bu mu mëna doon ndax bu ñu nee daganul mu kàllaf mu jëf génn jëf te xamul lu koy àtte yàlla ci dagan sibeel xaraam war sopp faw mu xam lu mu doon soog ci mën a jëf lu moo taxoon mag ñi ñu amoonu ñor ak teey ci lépp loo xam ne ñëwal ñu seet ndax seet te dagan ak ñàkk dagan bu ci amee lënt ñu bàyyi ko ba tey nag comme ci àdduna ñu ñëpp ñu ñoo bokk xalaat faw mu am ay wuute te lépp ñii gisee ko ne dagan na ñii gisee ko ne noonu ñu ma ko doon waxee rek ba am na ñoo xam ne itam sax na sax yenn jumaa yu bari daawuñ ci julli ah ah yoonu ah day benn ñoom tey ñoom seen topp nañ seen julli bu baax léegi nag daf ci am yoo xam ne sax moom nit yi daanaka du ko mën a ndax ñii ñëpp dañ cee marché ba daanaka dana naqaree wattandiku ah doo ko xam mun waaye la ah lii lii nag nga jël ko naq ba am mu di fay da ngay ñaq lebet bi na mu mën a na mu amee moom ba di la fay ko yoon ñëwu ca la fay sa alal waaw fay ndax ñu ñu sax ah xamul ku koy sax fu mu jëlee bala koy kii rek sax mu gis ko ne tey jii kii daal dafa dóor waa ji fa xaalisam wala dafa sàcc donc bëgg la nag boobu moom xam nga ko moom sant nañ la nga bañ ba wa ba tey sib sib nañu ñeel julli wa o sa awul ak li mooy ñoo wax rek na mbir mu ne na faaw faaw xale yi ñu doon benn waaw mu de moom daal ni ko borom taala waxee rek ñu ba ne alxaraamu bayyinun wal xalaalu bayyinun wa min waraa zaalika umuurun mushtabihaatun fa man tarakahaa salima wa man axadahaa kaana karraaki'in xawla al-himaa yuushiku an yaqa'a fiihi noonu rek la loo ci xam ne am nga ci ci sàkk mooy wa lismu maa xaata yow mi nga xam ne daal nit nga koy seet li ngay lekk di seet li ngay naan seet li ngay toog di seet li ngay sol di ñu gën a ñu gis taxaw rek ñu ngi woo lu ci yàlla wanee buntu anam ngoo xam ne gis nga ne lii daal sax li yan dagan na la ulama yi loolu la ñu ngi koy ñu ngi koy lii xaram mu wér amul sa sol lii dagan mu wér amul amul ak li ci diggante bi rek aw nga ci dëgg bi ko tey mu ni kon bu fekkee ne daal moom daf laa ameel bor moom bu jaayee sàngara si ah fayee lay yow sa la nga ko lebaloon rek fa nga ko jëlee woon loola ak compte bu fekkee ne itam la nga ko lebaloon yow da nga ko sàccoon wala da ngaa ko bon ni ci jàmm wala alal jirim nga yor ko bañ ko koo jox ab cër lebal ko bu la fayee woon lu dagan la nga xam ne moom fa mu ko jëlee dagan la la nga lekk dégg nga mooy laa xam ne qadaan wa taxmi yahudiyin wa taxmi rek yahudiyin bi mu ne dal ba tey bokk na ci ci dégg nga Grèce boo xam ne yahud bi dafa am nagam bu ràññee la bëyam nga ñëw jënd gerte bi ndax lan ñoom dañ ko xaramal xaram ci ñoom ci seen yoon xam nga ni moo soxla tànk ñu yokku woon ne loo xam ne nii seen yoon daganaloon na ko te tere ak saxal na ci bàyyi saxal na tere bi bu bu saxalalul dagan bi bu fekkente ne seen tere ak daf koo tere woon. tere ak saxalul daal dara fekkante na léegi ñoom ñi nga xam ne si ñoom seen bopp dafa dagal si ñoom di jëlee ci mbiri xel bi xam ne ñu daganal la defe ne ko na ko seen yoon santaane ñoom la dagal fii nag tudd nañ ko moom ndax ñoom ñoo ko seen yàlla araam na seen ñoom ñoo ko araamaloon seen bopp ñoo ko araamaloon seen bopp ñoom waaw waaw waaw wëlbu xëy ak ren bi li ñu ren bi li fan yi dund ne croix waaw Isa wala yoon yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam nga xam ne xëy subhaan moom ren bi ci benn la wax waaye ma wax dëgg rëy bi ak bi ci ñu xaramal la ko parce que ndax ñoom ñu daañu ren bi juddi turu yonte yàlla Isa ba nga ñu lekk dana xaram lekk ko naka noonu bu ñu rendilee itam ñoom parce que tamit ñoom mooy mooy Isa moom la ñu salam ñoom la ñu wa qabuli mutasaddaqin ak nangu lu ñu sarxe di di ci diine nasaraan yooyu loo xam ne dafa dañ ko dafa jëf dafa leer itu yang anak kabul mustaqim bila itu muslim muslim bila kalau itu buat takzim muslim dengan dia alhamdulillah dengan itu berat Wow. Hanya mungkin mungkin mungkin tak kita mengharapkan. Ini bisa jadi. ak wala ñu nga lax seen ci boobu seen konte bi dañuy nga lax di may seen dëkkandoo yooyu sib nañ ko de may la ci sibeel rek ci nekk sibeel parce que naaw ñoom du luñu lu ñu ren di nekku ci fekkante ne majoosi lañ ñi nga xam ne dañuy jaamu safara wala maanaam daal ñi nga xam ne ñoom ne anim wala ñu amul benn diin ñoom ba tey ñoom bu fekkee nag lu amul ren bi la muy ñam rek dana dagal ñoom ñi nag lu mu jëm ci seen diine moo tax dañ ko ko am gannaaw ñoom seen gisu korité wala seen gisu seet boo xam ne bii seet bii ni ki juddi bi yonte yàlla Isa wala yooyu léegi sax nag moom juddi bi ñoom ñoom ñooy defal seen bopp le vingt-quatre ak trente ñooy ñooy doon ñoom la koy def xam naa nag ñoom sax diine wuñ ko ngir diine jëf ñoom po rek lañ ñoom occasion la pour foofu waaye nag yooyu yëpp de waroon nañ ci dindi seen xel de fenn lay araame bu fekkente ne jëmul ci mbiri diineem jëmul ci campagne pour diineem nga dem yow ci sa bopp di fa tawax bi di koy di ko ñaan wala di ko sax boppam day gënal ci ñaar moom araam waaye fekkee ne moom ñu ko jox mën jëre ci jëmul لا يهلك ولا ان يؤمن من يقاتل في الدين ولم يخرجكم من ديركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الا الى المقسطين انما يلهكم لا ان الذين قاتلكم في الدين فاخرجكم من ديركم وظاهروا على اخراجكم ان تولهم fekkente naan jëmul ci seen mbir diine dugul doomu aadama ak morom mi rek ndax dañuy wax ne àq ñu dañ ko amee nit àq ñu nga amee ko ñaar ñu nga amee ko benn nga amee nit àq mooy nga xam ne sa mbokk la ngeen dëkkandoo muy julli nga amee ko xàq dëkkandoo ak su mbokk ak diine borom ñaari xàq yi nga xam ne sa mbokk la noppi yéen a dëkk te di julli nga amee ko xàq dëkkandoo lu ñuy laaj la ëllëg dañ ko toppatoo de xàq yi tamit borom sañ dana la ko ne keroog yéen la fay nga amee ko xàq dëkkandoo ak xàq mbokk ak ki nga xam ne benn xàq rek la ko amee mooy sa mbokk mi nga xam ne di julli te dëkku leen kon doomu aadama yi mën nañoo jëflante dimbalante du dul yéen bi nga xam ne moom day xeex ak ñoom mooy li nga fàttali ko ci jëm su la muy dëkkaati xunsa wala rendi koo xam ngul ngaana lañ koy wax mu rendi wax ak yéen wala comme ñooñu ca màkk ñu am yaram koy watt ci ñu dañ leen وفاسق ولا فاسق فاسق نك فاسق بجاري عليه ولا فاسق نك سواء انتبه لنفسه ولا كده فقط فاسق من العلف خمنا نقول فاسق بعقيدة مو موجودة له فاسق بجاري هم ويسنا خمنا بهم بينام ولا بيسا فاسق بعقيدة مو يقوى خمنا دفاع أبو العقيدة أهل السنة نتأكل مخزنين مخزنين قدرية رواتب شيعي حواليهم إلى آخره إلى آخره dañ du leen def takfir nag ci biir dënnu waaye takfir ak tabdiya ndax borom bidaa bu fàtt ci ci gën a ci borom bidaa bu fekkee ne day woote jëme ci bidaam du gën a garaaw ndax faasaq bi gën a bari bu woote jëm ci faat dund nga xam ne koom dafa ànd ak bidaa mooy ki nga xam ne dafa fas li nga xam ne moom la rawaati bi fas la xadri wala mursi ay comme ci man doon fekkee ne faatiq la daal naka noonu ak ren dem la mu ne wasu dëkk ci kaa bi yin ñi ci ren di ko téere mu ren di lii suñu ñeel bind léegi nag daf koy rendil ndax loolu dagan na wala daganul moo xam ren la moo xam loj la yar kitaab yi itam boo xam yahud la wala chrétien ñu ñëw rend la yow yaa am sa xar dafa ñu wala waaye rend la xam nga bu njëkk dara fekkoon ci ñoom ñoo rend seen bopp rend seen bopp ca la ñu daganal ca nañ ko daganal léegi léegi yow yaa ko woo di ko rendiloo xëy na da nga ko ne waxal bismillah da nga ko taxaw ba matal sarti ren bi mooy dagg për pom bi ñaari wala bi dagat na wala dëgg na xaw na dal jëf boo jox muslim jox ne ni la wala jar boo jar waaw te li ñu xam ne dañ koy jëm dégg nga mu ne wa jar muslim jamu jullit mu may jin di aje ràññee xam ne wax yan pëj nga àll léegi du xar yi wala bëy wala yooyu wax ci la benn kéwén la la yooyu la waaw bu fekk wala mu fekk ko يعتبر إجماع ولو في إجماع أو شق الجلد أملاك أما شق الجلد بلا إجماع فلا يعتبر ومتعلق الجرح حيوان وحسين والمراد من حال الإفسال فلا يمكن به فاسد لقوله تعالى وما أنزل من قلبه وعلمه يقول ما عليه أن في السيد لأن في السيد نوع التعبد وقوفا مع الإسلام في المؤمنين ولا يعرض الله ren bi daal wutale na koog dëgg ndax xam ngeen ni waxoon léegi ci ren bi te kenn nag daf ko set wala mu set ko moom la génn moom dàq na ko tax ñu ne dëgg moom dafa am dafa am coono ak ñàkk tax ñàkk tax dina nekk jaamu ren di nag yow yaa dominé di ngay leen léegi nag dafa mel ni yow yaay daw ci dox ci moom te yow ñuy jullit bi sax boo ko dee seet nan bismillah su dee xaj bi nga koy jël nga koy téye ba gis trop yi mu ne bismillah kooku loolu tax mu dàq ko nee na wuti naag ren bi ñun nag moom wax fii boobu xanaa boobu dafa nekk ci àll ba rek ñu fettal ko wala ñu fett ko mu ne bal wa inta am na donte ñii noon na dafa nekk ci kër gi ñu jël ko wala ñu yeew ko daal moom ko ba mu néew aje na koo xam ne lot na anti wala ko indaal ko suñ ci da doon rek la ko mën a jàppe ñun noonu waaw mu daw na ñëpp xam ci àll bi boobaa dañ koy jàppe ne arab yi ci àll bi mun nga koo jàpp ba di ko tër ko ren dina mu nam la gën a ne ay nag soo koy seet wala nga ko fetal ne wax bismillah foo mën a jublu rek ndax mun loo woon ba ci rafet jubale ko seen wala waaye laa na am de daa jëri jiri kër yi nag de moom doo ko jam kat dama lekk dégg nga ñu sarada koo xam ne jàngam na daf nekk ci àll bi rek nag benn kër kooku dunya rek moo xam ne àll kat li moom nekkul woon jëwal boo xam ne dafa ñëw ci ba mu yàgg ñu gis naa ko mu daw ñu nag la da koy wala xar def def rek génn dem ci àll mun ko def xaw xaw sarab daa naan semble lool xaw ma nag daal mu indiwoon xaw daal dina dafa soxaroon daal ba nga ko jotee naa ci mu setloon ci bopp bal bi am naa ko ci biir sama daal boole yooyu nga xam di wéel ma xaas mu xaas ndax kooku moom sa wasila wasila la jàpp aw tradda wala mu barakiku di kuwatin jóge jóge ci lu mel ne volontaire wala mur ba daanu àgg ci ñaar wax ni ñu ko doon waxee dégg nga di si laaxi gànnaay nga xam ne bii boo xam ne bu ñu ñawal la moo xam ne ñaw ñaw taw wala ñaw waaw waaw dana ko wax loolu mu gën a ko wax xayawaan yi wala xaj wala foko faq ñu koy wax ci wala ci xo xo waaw wala xay xayawaan bi mel noonu nga yebal ci moom xaj bi jàpp ko wala géej bi àdd ko nga ñëw fekk muy lakk lakk wala fekk mu dee bu fekkee ne gànnaay daal lañ ko rendee moom lañ ko lam bu dee rabu àll moom lañ gànnaay lañ ko jame wala xayawaan lañ yebal ci moom xayawaan buy rëbb mu am fës la wala faqr wala xaj kon li ma boo xam ne xamee def na ko dañ koy jàngal de di istaan ànd ak na fekk ne yaa ko yónni maanaam yaa ne bismillahi jal mu dem dàq ko rey ko dama dàq naa ko fekk de baax na da ngay kon fekk rek ñu rek fekk mu rey ko wala mu fekk ko boppam dàq ko rey ko di istaan yi si yebal nag min yeti fii ci loxo bi yow yaa ko te te xaj yi ma waxoon sànq wala fokk mu rëbb ak bilaa zuhuur tarkin ci lu dul feeñu bàyyi woon ko maanaam tàkk ñu ci bu fekkee ne nag yaa ko téye woon bàyyi ko mu dem nga bàyyi ko mu mu jàpp ko dem rey ko ndax sàkk sañu ci bala nga ko xam ne da nga xam moo ko rey wala mu yël na ko talam rek yow yaa ko yóbbu mu dem ci dàq ko ba jàpp ko naaw ba tiim ko fàdd ko wala mu daw ba jàpp ko noonu tiim ko dégg nga walaw taaddada doon ci li mu woon ne machine bi day ñu yëppam rab yi dañoo bari nag jël daal di ci seen ko rek bàyyi ko ñu daal di daw jël ndax rek rey day daf dee rey daf dee rey xam nga bilaa bi wër kër dafa daal di mel ne bu fekkee ndëf la rek dara bokk yow bàyyi woo ko mu ni aw akala wala mu lekk ko nga ñëw fekk mu lekk ci lu bari ah la yugro aw akala al jaarixu ba'da sayyi aw lam aw lam yura wala giseefu ko lam yura la buñ bi xaarin ñu nekk ci kun wala béréb bi ndundam daal oo xayu batin wala mu nekk ci got dëndam ay garab yu bari dégg na mu lim rek dégg na mu ne dëgg dëgg ci rek mu ne xam ne benn raba ngoog wala wala nangam rek ay gis ko xamul lu mu doon xaw na yéene xamuloon lu mu doon naka noonu ñu mel ne ñu dëkk dëkk mu lekk ko mu ni aw aw lam yakun na wala jottuwul woon naw akoo xeetam ñu ne mu baat li ñu daganal dafa gis ne lii daal siddi la te du daganal lekk wala nangam la ñu yebal ko ci ñu rey ko mu ci rek ñu tébal wala yooyu aw zahara wala feeñ ci feeñ aw zahara wala wa zahara aw ngir dinde aw zahara wala feeñ xilaafuhu waaw dafa ko ci xëy na ñaar yëpp mën na ne ci lu dagan waaye lu dagan waaye mu bañ a xam lu mu doon sugal la wala baa ba ñëw la wala jàmm jóg wala yow ñi dagan na xam ne xeet yi dagan lam ko jot woon mooy lii nag mooy loolu mooy bi benn dafa xamul dafa bokk ci ñu war a lekk wala bu ci ñu war a lekk benn dafa xamul mu doon mu ne waaye nag laa jajin mu dagan nag in rannahu ndem jotoon na ko xaamal dañ ko yebal waaw waaw dañ ko xawaa dafa ne ñun de ñu ne di jëlaat wóor ñoom raw ta àddata mu ci wóor aw akala ba tey ci njël aw lam yura yaxaari aw kay aw lam yura na naw ak wu min al bu baax aw ba aw la xar xilaaf ko ci dugg ban bu bari ban bu yow ak bu baax kabaka laa yi kalu foofu la tàmm foofu la tàmm yéen ñu ci xam nga jiw aw la ñuy wax bi xaari aw xayri si ñëpp ci lu dagan yi aw laa yéen alim wala ñu ci fekk am na ay kon lahuma buntu axar wa illa fala yumkin lihtimal yaxtiri xayra maana waaw aw lam yakun na al mursilu nawahu ay naw al mursilu min almasi aw fabyu aw baqaru aw ximaaru waxdiyu ma inni bi annahu min almubaarak أو أرسله على معين كان مغلبين صراحة في أبوه وإنه هو النوع الآخر مباح طبعا يخلقه من لا إمكانه لا إذا لم نقول يكون فجر بكثير من حرام الله وجاء الإمام بوحد الآية وبيت الأخوات الأول لأنه تابع لمعينه ولا يأخذ الكارث ولم الثاني أن يقتل ما يشتهي ولم يقتل الثالث أن يقتله على معين وما معه إن كان لم يرى بغال أو غيبة أو لم يظن أنه أظن أنه مباح أو بحال خلاف من كم يسوى إننا إننا نتعمل أولا لنا عن الثلاثة أو الثلاثة قوتي سلاح محدد بجاء مدلجة إلى قطعه وحيوان علم بالإستاذ من يده بلا ظهور كركب بالإمكان من يده بلا ظهور كركب ولو تعدد مثلا ولو تعدد نصيبه عم يصير من بورو بيصير وين يعني كان يصير من بورو بيجي سوى ولا يجوا عرب يجي لا يجوا ولا مو جبل ليه ولا بنتي عليه بنتي عليه أنا لا واو ده يجي نكو مو جبل يجي رأي يجي ورا نكرة ولا تعدد جنبه أو أكلت واو أو أكلت جميع السائل فلا يكل أو أكلت من أنه ولو سأدت بسجد ونوى السائل جميعا من فرو سأدت شيئا لم يلي السائل فلا يكل خمسين من العلم أو أكل الجاره بعض الشيء ولو أكثره فليس إذا لم أو لم يرى أي لم لم يعلم السيد حال كونه بغاية tey da nga wala mu xam tey da nga ñu ko xamul fu mu nekk waaye xam na ne mu ngi ci nangam ci ci ay tey ci ci wala soo xay ci naka noonu tey mu tax ba wala do wala شرط أن لا يكون لهما منفذ آخر. لابد أن دفاع عن سنة من منازعات من نجيب نجم بنين تك أن بنين بسنة كل شيء يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو جنة من أول أول من يظن نوعه واو واو من واو أول من يظن أول من يظن نوعه من المباح لا أما أو ظهر بابا ما يظن وظهر من جد ولا أو ظهر ما أو ظهر قد لا مثلا المهم أو لم يظن نوعه من المباح تفسير من جاكنا أي باب فوق moo nekk na lekk dégg nga xam nga xam na ne mbaam foofu moom kenn du ko lekk lekk bu bu bu yabal nag foofu moom du wala kii bi nga xaj bi foofu mu dàq bi jàpp bi xam nga yéene wu loolu pour pour lekk waaye mu dem nag fekk ñu jëwal ah bu ko lekk bu ko lekk xamoon dafa jaxal day mu jëf dafa doy waar waaw waaw bang moom yéen a yéen a wala ren bi ndax jàpp nga lu dagal xam nga wax ni ñu ko ñu bindee moom moom du doy waar waaye dara baaxul léegi waaw gis nga ne xam nga laa yu këri in zannahu ay in zannahu mutlu al waxdiya xina xina istaabili al muallima zannahu xarama إذا هو على نيته أو من حضور مقتل وأولاد يتيقن ذلك وكذا إن تحدث أو توصل بآدم النية أو بآدم النية waaw moo tax moom kay li muy def mooy attaque yi muy attaqué moom loolu la foofu la tàmbalee duñ duñ di lekk fa axada wala dégg nga xaj bi jàpp na dégg nga rab bi waaye xayra muxtalif alayhi bokk la bi nga xam ne ci ko yónni ci yëbaloo nga andi silo ala mu ayini nga andi silo ala mu wala wóoluwul min al mubiha aji daganal ji fii sharikati xayri fii sharikati xayri bi ci boo xool boo bokkaale keneen ñaar ñoom ñaar ñëpp ñoo yebal seen boppam wala seen xaj ñu def jàpp rek rey rab yi ñu ci fekk ñoom ñëpp ñu koy joxe wala ñu ko dégg nga غير المبيع الأساس المبيع غير المبيع لقتل الحيوان أو إنشاء مقتله فلا يكره منه ولا ولا يكره مذكر بدور عن أمره بين الحج والحرمة والقاعدة تقضي بجانب الحرمة ثم مثلا ما أكلت ثم بدون طول ها وقد يجب ما ما تبغى
wala muy la nga xam ne rek maanaam nga koy moom nga koy reyee waajib la ci yéene ji yéene ji ah bismillaahi ji moom yéene jee ko gën a war ko jiitu waaye nag bu fekkee da ngay tudd dara moom bismillaahi ji moo war bu fekkee tudd nga turu lenn lu dul yàlla nag doo si ko lekk da nga am bàkkaar ba noppi te la nga rey baax wa tasmiyatun ak bismillah waaye nag bismillah moom in zakara dem fàttewu ko fekkee ne fàttewoo ko jég jéggi ci ne kon bu ko fàttee wala mënu ko dara nekku ci fekkee yéene ji dem léegi nag masala mi ñu sulli woon noonu laaj ci façon reyinu mën a am ne sax ku ma bind def di ko laaj yàpp yi moom dafay laaj boîte conserve yi waaw ba tey wax nañ ko fi. barke bi Mouhamad Diém laa def benn lettre bi tam ci gars yi nekk foofu mooy ni ñu ko waxee woon rek ñoom seen bu rendi bu fekkee ne dañ koo jaare ci ñi leen seen yoon sante rendi ñu ko rendee ñoom ahlul kitaab yi moo xam chrétien la wala juif daan ko lekk fekkee ne dañ koo rey neneen bu ko xam ne duñ ko lekk du dagan ci mu lekk ko fekkente nag ndax li tax ñu wuuteeg na joos ñoom amoon nañu yoon woo xam ne fana su xawan ma zikru la ñu wax dañoo am lu ñu fàtte ca lañ leen jàngaloon ak loo xam ne dañ leen ko war a xamal léegi te bu njëkk ñëwul woon ci téere yu njëkk yi fekkee ne jaar nañ ca loola ñoo ëpp xiima keneen ku ne si jeneen diine wala ju dul diine lislaam wala koo xam ne kii dangaa amul diine war war na ba tey naxaru ibilin loj gëléem suñ ko rendee kenn du ko lekk dañ ko war loj bu ngeen loj wasi naag rëy bu ngeen xamoon ci loj am na nu ko wala fi wax sax xam nga rëx rëx kon waaw gëléem ni ñu koy defee daal di ko ren rey ci gannaaw waaw ci gën ci gën man na dama xam gëléem ndax bu ñu ko rendee moom daf duñ dee suñu rendee yii waaye xanaa buñ dee bu ñu reyee bu ñu dogee xol xol koom bi ak ñaari aw daaj yi xanaa dina war a dee lu gën a gaaw a sedd yeneen yi loolu gën a gaaw a sedd yeneen yi
laj bi dina gaaw a sedd xëy na loo tax ñu sopp ko ci moom la ñu sopp ñu digle ko ci gëléem daal moom kon dañ koy loj kon it kuy loj it bismillahi sa gannaaw yéene ji yéene ji sart la bismillahi sart la ci kaw maanaam li ko yéene ji gën a dëgëre yéene ji boo ko bàyyee du fàtte ko du dox bismillahi bi nag boo ko mënul wala nga fàtte ko du tee da nga am ngàtt daal wa dafu xayrihi ak rend lu dul gëléem moom dañ koy rendi in qadra dem mën na koo rendi bu ko mënul a rendi mooy lu mel ne dinu wees woon ci rëbb bu mu yebal xaj bi wala baas bi dafa ne bismillah jaba bàyyi ko mu dem li darurati wa jaza wa jaza daa ñu dagal ñoom ñaar fi darurati loolu rendi ak loj ci lu ñuy loj darurati kaw ko in fi mahwaasi adame suñ ko teñ amuñu luñ ko rendee moom rendi ak ak lëj muy gëléem ak lu muy gëléem
maanaam kii jawaas bi nga xam ne amuñu ñoom ñaar waaw est-ce que génne nañ ci gëlëm wala gëlëm moom ndax xam nga li si am mooy gëlëm bu ñu ko war a rendi kenn du ko lekk.
kenn du ko lekk moom kon gis naa la ci biir.
waaw moo tax mu wax jaasa maanaam loj ak rendi bu doon rendi rek mu wax jaasa rek comme loj itam ak rendi ñoom ñaar ñëpp nag bu fekkente ne daruura la matalul sart yi waaye daruura la dana dagan ni ki tey loo xam ne amul luñ ko rendee wala amul luñ ko lojee ñu def suñu kem kàttan ci sàmmoonteeg sharia ba rey ko lan shana ujalkuma ayba waaw fekkente ne mu ne lu dul gëleem dañ koy loj mu ne in qadara ndem mën a ko waaye wajaasa daañu wéy ñoom ñaar muy rendi ak loj danañu wéy waaw masalan li daroorati bu fekkente ne mënuñu ko bañ a amuñu daal luñ ko mën a rendee amuñu luñ ko mën a loje nekkite waaw tey léegi maanaam gis nga borom xaram léegi. nga xëy na ak rab la yor pour koo jëfandikoo rek.
waaw bu fekkee ne amul lu dul rab amul lu dul moom muy nag illal baqara ndaree nag sidna seen lay bari wastasna min qawli wa dubha xayruha dafa li mu waxoon ne lu dul gëléem dañ koy loj mu ne illal baqara ndaree nag moom fayu dëggu deef na sopp ci moom ak dabaxu rendi nga xam ne kon loj dagan na ci daañu ko rendi buñ daa buñ ko lojee daañu ko lekk moo tax mu ne illal baqara du nag fa moom yuñ dëggu def na sopp ak dabaxu rendi gi jënga naka noonu ci aala jumtuwaay bi nga xam ne moom la ñuy rendee mu ne kal xadidi naka noonu moom dafa nirale li nga xam ne masalan moo dagan suñ ko mënee cofeel bi nga xam ne moom lañu sopp ñu def ko boo- boole nañ ci loo xam ne lii jumtuwaayu weñ bu ñuul la muy paaka wala lu ñu moom loo xam ne lu ñaw la mboolem lu ñuy rend rek ba ci loo xam ne dañ koy cor sax weñ gu ñuul lañ ci tànn moo gën bant boo sot ba mu ñaw wala nga yett ko ba mu ñaw wala përëm wala gànnaayu xaalis wala wurus xadit lañu lañu sopp boo ba dee sopp nañ ixdaaduhu xaroo ko ba mu ñ- maanaam daas ko daal ba mu ñaw ci jublu yërmande bu gaaw a dee bañ a mettital ndax su fekkee ne dafa ñëwul ngay rendi mu yàgg lool lépp mu nekk ci mettit bi de du baax wa qiyaamu iblin ak gëléem na taxaw ñu ñu tënk ko qala ya ayyuha al-islam ma fi taqaddum Hmm?
maanaam gëlëm fi muy loj bi moom daf ñuy fi muy maanaam toog ñu yeew tànk bi moo ëpp sécurité ci ki koy loj. moom taxawaay bi ak.
mën na nekk taxawaay bi de moom mu tënk ñaari tànk yi waaw ay naa.
mën na am dans ce ci yenn ci gën benn la bu sëkkee ak waa ñu ngi koy yëngu.
waaw yes bi de xam naa ne moom waaw ndax bu taxawee day mën na laa daal di gaañ surtout soo commencé mu metti mën na laa gaañ ay naa fi moom teew naa ko benn xalaat.
xam naa bu fekkee nag nekk na gëléem boo xam ne ragal nañ daan bi kii bi kii bi nekk bu soxal cofeel gi rek la nañ ko bàyyi ñu taxawal ko wa dajxa dibxin ak tëral li ñuy rendi mas dibxin maanaa mas booxin ala ñu tëral ko ala ay sara ci wetu càmmoñ ci kiiwu càmmoñ bi wetu càmmoñ bi mu tëddee nii ba tey kanam bi féete penku bopp bi féete càmmoñ moom it mu tëddee wetu càmmoñ muy safaan néew ci bàmmeel watu wajjuhu ak jubloo leen ko def moom mu jublu xibla noonu mu tëddee càmmoñ jublu xibla wa idaaxul maxalli ak setal béréb bi ñu koy tëral bi ñu koy tëral maanaam feeñal ko ba nga xam ne béréb bi nga xam ne moom la ñuy rendi bu ko defee karaw gi du tëye paaka bi lu bari wala dund yi ñu kile ko daal ba mu set ba mu leer naañ leer noonu daal nga xam ne fi paaka bi tegu o farlu wada jey saydin ba tey sopp nañu dagg ñaari aw daaji rab wu ñoo xam ne dañ ko rëbb ñu dagg ko maanaam buñ ko fekkee muy dund waaw ngir boj bañ ko ci noonu muy mettit ba dee um fi sa bopp wéré wéele fat na maqtalu nga xam ne buy wéel loolu maqtalam ñu ko bàyyee ba mu dee deewul kon ci ba ñu jëlee xaj bi wala baas bi ci moom ne bismillahi loola kon rëyu ko ci dara fekkee nag fekk nañ baas bi wala wala xaj bi weel maqtalam ñu xam ne daanaka rend gi am na dañuy dagg nag yooyu ngir mu gaaw a dee rek pour noppal ko booba buñ ko doon lekk sa ko lekk hmm?
waaye moom buñ ko doon dul ci xaalis kon it daañu ko lekk ndax wéyal nañ maqtalam waaye nag dañ koo bëgg a noppal fekkoon ne nga xam ne su fekkoon ne wéyalul woon maqtalam kon ren di amagul rey rey bu dagan amagul kon ba fii jawaasi dëbxe mi ci daganu rendi bil azmi ak yax wasini ak bëñ mooy màtt aw wala mun koy balay dagan in fasalaa ndem nekkatuñ ci seen boroom bëñ bi dafa dañ nit ki màttul kii bi wala wewi nekkul di ko kut dafa dañ waaw ndax dagan na bil azmi wa sinni daf ko boole ñoom ñaar fi jawaasi dëbxe bil azmi mu ni sax we dugg na ci mu ne yenn na sax yi sax lii de bil azmi bi war li ñu def bu wufri mooy we wala we kese mooy kut foo xam ne jokk na ci borom wala jokkuwul ne xëy dañ ko sib waaye mu ni xataree fat na maanaam daganu reye we wala bëñ aw wala moom kay inin fasalaa nem facc nañu lay dagan wala moom kay bu facc bu ñu faccee bu ñu faccul aw bil azmi wala ci yax te mooy ba tey nee na weele si jublu ana lu ne sa kanam xilaafun wa man ihima ak tere seen xilaafun am nañ ci wute kon am na ñoo xam ne kut wala matt wala fekk wewu rek mu xam wewu nit la wala wewu lu gën rendee ko wala bëñ bëñ bu ñuul dañuy waxoon ne sopp nañu weñ bu ñuul waaye bu dee weñ te du weñ bu ñuul it dagan dañuy sopp weñ waaye bu dee leneen lu dul nag weñ ñu ne lu mel nag ci li ñuy reye li ci ëpp mooy kut ak bu dee du tuuti wala màtt ak bëñ tubaab bu ko reyee dafa waaw baat bi mu dagg rek suuf léegi bu ñu ne am na ci weeram bëñ bi bëñ bi léegi su fekkee ne lan ko jëlee dafa meddoon moom bu ñu xaar da nga xaw a ragal
waaw kooku nag ak day am ci mel ndax jëfandikoo loo xam ne lii ci medd la bokk am na ay charte jëfandikoo lenn ci lu medd ñu nattale loo xam ne buñ ko dindee ci borom te ba muy dund du mett du ko metti itam ñu ki dund te doon dund yëpp am na du ñu doon dund yëpp métti ndax dund yu ndaw ñu koy fii ñu ne nag suuf bi moom bu deewee méddee buñ ko raxasee ba mu set am na si olamaa wu ñu ko daganal dañ koy def fuqahaa yi kon loolu day daal di génn ci loo te xam ne tere nañ ci jëfandikoo bu medd ba ci xam nga ivoire yi si dañ ko sib ivoire yi dañ ko sib bañ ne kii ne yi seen défense yi nañ ko ndax toujours day métti général ndax dañuy duñ ko lekk ko rey reyu fas yéene ren di ko sib mu ni waxaruma araam na istiyaadu makulin rëbb lu ñuy lekk laa bi niyati zakaati ci lu dul yéenee rendi loo xam ne lii du caagi ni pour dañ ko bëgg a lekk lu ñuy lekk la waaye yow nga di ko rëbb nii rek da ngay fo parce que ñu wax naa ne sport ak yu kenn xamul kooku moom mën araam na gis nga ko de ñu ne ci salaam bi an bi an istadahu bi niyati qatlihi rek أو الفرجة عليه أو حبسه بقفص ولو لذكر الله تعالى الدروس وقم بيين بدأنا واحد يبتشي خمني عمر سنة لك خمني dañ koy garder def ko ci kaaf pour muy way way bi moo tax nga ko teral ko الاستعادة بنية شرعية نكت به على ما يقوى في البيت من المفاسد كوكم من نك خينا فروك ساكو ساكو يوا فكين ساكو بي دفع ام جارين لو خمنا شرع نمو نكو نيك تاي داف لاي واخ لوñ fi def sa gannaaw ci lu baaxul wala mu mu mel ne bu fekkoon dafa mel ne ganaar gu lay yee jël wala yu mel noonu di sab wala yooyu am na daal njëriñ loo xam ne sharia nangu na ko nga rëbb ko du pour lekk wala pour loolu dana dagat nee nga mu ne illaa bi ko xinziirin lu dul nag nga rëbb koo xam ne da ngay rey xinziir moom dagan na rey ko rek noonu fay juus dana dagan kon rëbb ko pour rey ko rek
waaw kii bi état bi ni mu ko defee istisna na léegi mel na da ko def istisna ci ma istiyaadu maakul dafa ne xam nga man wa haruma istiyaadu maakul waaw laa bi niyati zakati kii ci laa bi niyati zakati bi xam naa ci la dellu ki la ko war a istisna istisna bi ndax moom rek ci dafa naa xayawaanaat yi moom rek ci dagan rey ko ci lu dul parce que yéene jëriñoo nga xam ne lu ko yóbbee loolu am nag rab yoo xam ne ci dañuy lor moom dagan na moom am na ci yoo xam ne jihaar la sax yaan ni jiit yi janax xaj buy gëddee génn na ci janax yow rek xam si mel faasitu toll ko ji waxal
طيب أما الإثنان من عشرة كهدأة مع الغراب إذ يجوز قبل الجهل والكلب الأقوى وحدأة مع الغراب الزجور يقدر مني كن فيجوز دنا دغان كن كذكات ما نكا نون رن لا خامني لا يكل ديفول لك كو ان اي سندم ناغون بنو سي موم ني داي داي رك xanaa noppal ko pour noppal ko te xam ne yow doo ko lekk da nga am sa fas wala bax la wala mbaam mu wóor ne du dundaat day souffrir rek bu metti nga rey ko est ce que bu dee bu dee nit dina dee mu wóor ne dana dee léegi te mu ngi souffrir bu metti est ce que dagan na dagan na de ay ñoom de jum jaaruñu yoon ñëw ka nit ka am dañ sax woon tàqale min mawtin li axara in rujee aw taaxu waaw waaw mu ne nag kon wa kuréel si béfat na dabxun rendi bi dawrin wala bi dawri xafratin de waaw ci mu kiiwu kan wëndeelu kan dégg nga ndax dafa boo defee dafa dul jublu kii xibla tamam waaw ñu bari la nga dañ koo kileel nii def gas kan bi fii pour deret ji di ci tuuru bii tëdd fii bii tëdd ñu tëdd nag wër kan bi nga xam ne soo rendee day sotti ko ci kan bi ba pare suul aleykum salaam xam nga dana ci am yoo xam ne daañu jublu xibla waaye am na ci yoo xam ne du ñu jublu xibla ndax dafa wër kan bi comprendre comprendre xarit boo jëlee yu bëri daal waaw da ngay gaskan mi nga tëral fii di xar wala picc tëral fii benn tëral ba mu wër ngay rendi nag pour mu sottali ko sotti ko ci kan mi deret ji pour boore boo paree rek suul léegi dana ci am yoo xam ne du jublu xibla mu def moom moo tax mu tere ko mu ne ma kuréel si beef na ko si beef na dab rendi bi déw fufratin ci li wër am kan wa salxun ak fees wala soqti waaye natt fu ñaare la ñuy wax soqti waaye fees salfo sib nañ ko dégg nga loolu sax moom dafa doy waar xanaa kenn du ko war a def loolu moo tudd la ci la ci kii.
waaw kii lay ko koy naar yi naar yi sunu gàttu na ko defee. naar yi xaw di liggéey ci.
mag sëriñ.
waaw man daal maanaam daal bu ñu xasee war a rek borom mu ngi dëkk la.
loolu commencé tey.
seet nuyu ko.
xam naa loo ci seet nit mu tere ko dañ koy def ñu tey lay seet. naa gannaaw yi. ñu ne aw xatul wala bu commencé koo daggat dégg nga xablal mawti ci la jiitu dee bi ka xawli mu nirale ci ba tey mu ne ka xawli mu daxin naka waxi aji tabaski mu ne allahu minka wa ilayka fu mu ko jëlee dégg nga dégg nga la xawli wa quwwati ilayka taqarrub bihi ay la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah xam naa fi julli lu julli tale de waaye dañ ko jëlewul fenn ndax li sidna omar wax sidna abubakar wax rabbil anhuma ne inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli tax ñu sib ko ndax maanaam espèce bi daal daal wa taamudu ibanati rasin ak tey ndagg bopp bi ngay rend ba bopp bi ne kett te yaa ko tey du accident waa borom saal def nañ ko def de ñaawal nga def nga lu ñaaw waaye daañu ko yekk watu uwilat jamtaleefat na day ba tey ca fan ca mu dawande ay danati ada ala adamil akli ci ñàkk a lekk loolu nga dagg waaw na ngeen waaw bopp bi nga dagg li nga rendi ba bopp bi dagg nga sànni fële xam nga waaw xam nga borom bi salaam daf ne woon ren bi ba dagg def nga lu ñaaw waaye dinañ ko lekk daal di ko lekk in qasadoo awal wa duna nisfin ak lu yées genn wàllu li dee ubbi na loo xam ne fekkeleef na ko maytatun medd la illa ras bu ñu ko daggee loo xam ne lii mëtul nisf bi te du bopp bi loola medd la kenn du ko lekk da nga koo ren di da nga ar dagg lu bari loo xam ne bokkul ak bopp bi da ko doon rey da nga ko fas yéene ren daal nga dagg loo xam ne lii matul nisifu kii bi ànd ak yéene ak fas yéene ren di wax bismillah medd lañ ko jàppe ndax jaarul ci ni sharia digle li ñu mën a dagg ci li ñuy lekk ba noppi te mu dagan te matul genn wàllu jëmm ji mooy bopp bi rek mooy ba dund nisfin ak lépp loo xam ne di yées na genn wàll ubbi na loo xam ne faccaleef na ko ca kii ba mayta fi medd la illa raas lu dul bopp
ci rëbb rek wala rëbb ren bi rek waaw rëbb ak ren ren di kay rawat ni moom boo dëggee te yéene ren te muy loo xam ne lii danga ko mun la jàpp ba jekk ko rendi ko waaw waaye bu fekkee ne li nga xamee noonu la ñu daganale nga lekk ci rëbb ci loo xam ne bu doon jur kër bi ñu ko daganal boobu loolu bokku ci loo xam ne lii dafa teqalee dara loo xam ne lii matul ni si bokku ci mu ni wa malaka moomat na asayd rabbo al mubaadiru aji njëkk aji gaawantu maanaam aji njëkk agsi dégg nga doonte moom maanaam bu fekkee ne moo si njëkk rek doonte keneen a ko njëkk a gis sax moom moo ko moom way tanaasaa bu fekkente nag xëccoom léegi xaadiruuna way man ña way attal maam ñi ko jàpp fa bay dafum kii ne mën a kii ne mën a kenn xamul ku mu ci ñu ko bokk wa in naat dandem foñ ne juru kër wala min mushtarin doonte lu ñu jënd la it fa lisaani ñeel na aji ñaareel ja dafa jékki-jékki dem ca àll ba nekk ca rabi àll ba nga xam ne lay jàpp rabi àll ba moo koy jàpp léegi léegi ki nga xam ne nag moom moo moo ko rëbb ba jàpp ko moo ko moom ñu wala muy rab woo xam ne sax daf koo rëbboon jàpp ko moom ba tey waaye rëccaat na ko ba tey rek donc bu dee kii bi nga xam ne mën a sut koo jàpp nga xam ne ni ñuy rëbbee rek lañ ko mën a rëbbee waaw borom ñàkkoon na ko ba noppi bu dee aw rab nag bu ñu jàpp ba noppi kenn rëyu ko mu rëcc ci dem ba tey kii ko jàppaat mu koy moom waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw foofu ñu ñuy laaj fas parce que nee naa léegi jeex na américain yi rek nañ ñëpp fas yi ci àll boobu ñu di leen jàpp di indi ci jaay di ko wulli noonu di ko tàggat pour jaay ko.
kamar bi rek. kamar kamar kamar bi rek fii ci France la. mais am na fii ci Afrique du Sud aussi am na foo xam ne américain yi ñu amee ay hélicoptère noonu ñu baree di leen di tiim leen noonu wàcc xaw a wàcc ba jege ñu fetal muy daw leen dàq di fetal di fetal di fetal ba àll boobu yëpp ak fas yi tëdd mu ni waaw mu ni wala mun mushtarin doonte ki ko jàppoon daf koo jëndoon itam falisaar yi dégg nga koo xam ne kii daf dafa jënd rab bi ci ki ko rëbboon moom du cagin moo ko jàppoon waaye ki ko jàppoon daf ko moom ba jaay ko ko mu rëcc dellu ca àll lu dul nga xam ne dafa toogoon daf ko indiwoon ci kër gi ba mu miin yoon bi dellu si waat boobaa ko ko jàppaat doo moom ñu fi jaamoon nga jàpp waaye bu fekkee dafa delluwaat mel ne rab yi ci des nga xam ne li ñuy jàppee rab yi ci des rek lañ ko mën a jàppee ku ko jàppaat yaa ko moom mooy laa in ka ànd sa dicaa gi ndem miin na walam yatawaxas te delluwul njaayalu njaayalu mu ne wastaraka bokkaaleet na kaaridun aji dàq ma aji xibaaritin ak borom fiir gi xasadaxa ko jublu na ko xam ne kii dafa ne fii daal kéwél gi dana fi jaar daal di fiir pour fi kéwél gi jaaree mu jàpp ko ki ko dàq itam daf koy dàq pour mu jaari ca fiir ga fiir gi jàpp ko ndax moom daf ko bëgg a jàpp bañ na mu rëcc mu dàq ko pour mu jaari ci fiir gi ñëw ci bopp moomul fiir moomul fiir gi waaye moo ko dàq mu dem ci fiir bi te daf koo jublu woon bu fekkoon dafa dàq rek pour jàpp xamul fiir nañ fi wala déet waaw waaye moom dafa bañ mu raw mu ne daañu ko dana bu jaaree fi fiir bi dafa jàpp bu fiir gi jàppee léegi ñoom ñoo ko bokk ndax mu ne li tax ñoo ko bokk wala wala huma bu dul woon ñoom ñaar lam yàqa du tàbbi kon duñ ko jàpp bu doon borom fiir gi rek du ko jàpp ndax kéwél gi du ci jaar bu doon bu doon ki koy dàq rek te fiir gi ne ko fi du ko jàpp mu ni malaka sayda ñu bàyyi maanaam aji aji ñaar ñi nga xam ne dañoo gis rab yi mais fekkee kee moo ko tiire woon rab yi rëcc ko daw fekk jam na ko ba pare beneen waaye jàppaat ko fekkee ne jam na ko ba nga xam ne mënatu la def waaw keneen di ko jàpp ko kooku itam di ko jàpp di ko di ko moom di ko moom taxte boo gisee ñuy wax lu baax bi njëkkante dafa nekk noo xam ne daanaka ku sa njëkk ku ko jàpp rek yàpp moom daanaka mën maanaam amul dara loo xam ne lii gàllankoor na ko nga xam ne kenn ci jëfi kenn ci ñoom la ba mënatul def kon ku faa ko moom fii boo gisee ñuy wane ne ñoo koy bokk mooy ñoom ñaar ñëpp kon ku ci nekk jëf nga ci loo xam ne bu dul woon yow duñ ko jàpp kay itam bu fekkee ne waa ji daf ko jam ba mënatul dem ko jàpp it moom loo dara waaw di ko njëkkante mu ngoog waaw dañ ci bokkaale nag ñoom ñaar bi xasabi fi alayhima ci kem seen jëf ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk ci dàq ci fii mu ne wa in lam yaqsid su fekkee nag jubluwul woon lu muy dàq kéwal gi jubluwul woon mu jaar ci fiir gi waa ay sa te mu naagu nit bu ci jàpp ko kon fa li rabbiha ñel na borom fa rab wa li rabbiha ñel na borom fiir ga ñu nga dàq na ko ba mënatu ko jàpp raw na ko ba ñu séenatu ko sax xam nga naagu na ko nag jàpp yaakaaratu ko léegi mu dem jaar ci fiir ga kooku borom fiir yëpp moom wa ala taxqiqin ak ci dëggal maanaam ki nga xam ne moo ko doon dàq maanaam ci lu dul fiir gi kon fëlahoo ñeel na ko moom mu ko dàq ma fa dem xam nga du fe- du fekkee ne gannaaw moom dafa dàq ba naagu ci mu jaar ca fiir ga borom fiir gee koy moom su fekkente ne nag du ci lu dul fiir gi nga xam ne bu fiir gi nekk woon it waa ji dana ko jàpp su fekkente ne nag du ci lu dul fiir gi nga xam ne bu fiir gi nekk woon it waa ji dana ko jàpp moom nekk gi fiir gi nekk te jàpp ko yoonam néewu ci moo ko moom ndax wóor moom moo ko jàpp xaqiqiyan moo ko jàpp te jàpp ñu ko ci fiir gi doon sax bi dafa doon wattandiku fiir gi ba daanu ci leneen mu ñëw fekk ko jàpp wala ba ba ba dajeeg moom mu jàpp ko it bu ci mën a doon moom mu ko doon tax rek mu koy jàpp léegi mu nirale ci ci bi nga xam ne nag moom ki ko dàq moo koy moom mu nekk daarit naka yaa mu yaa am sa kër mooy dàq lépp wala kéwén ñu ne dara ci biir bu bu duggee ci kër gi léegi mën nga ubbi bunt yi du turaw bu fekkente ne daf ko ilaa an yatrudu moom la moom la misaal nii mu ne ilaa an yatrudu laa yatrudu nda nga xam ne dàq ko woon lahaa mu jëm ca kër ga kon fa lirab biha ñor na borom kër gi dégg léegi ki nga xam ne moo dàq ci bi mu dugg ci kër gi rek benn xaw daf koo jublu woon fa daxala akahu wa li jaaribihi walaw qasadaha waaw وسواء أمكنه أخذه بدونها أم لا ولا شيء عليه إلا ربها أي فيما خص به فلا على نفسه من التعبير خلافا لابن رشد لأنها لم يصيب ولم يقصد بانيها ولم يقرأ لها yow da nga dàq kii bi moo xam da nga bëgg ñu dugg ci kër bi pour yaa ko si jëmale pour mu yomb a jàpp wala dé wala dédee yow ñu ko dàq daal yaa ko jàpp borom kër gi moom tabaxul woon këram pour rab bi dugg ci jàpp waaw ñu borom kër gi bëgg see tax dégg nga mu nekk laa am laayaturu da woon ndaay nga xam ne kon dàqoon lu dul nga xam ne rek pour mu dugg ci kër gi mooy tax ñu koo jàpp nga xam ne li kër nekk woon ko su jéem a ndax ndax du ko mën a jàpp kon nag bu duggee ci kër gi borom kër gee ko moom ñu yaa ngi xattaari bu ko dafay riba ñun nag nga xam ne su koy dàq xam nga ne itam bu dugg woon ci kër gi dana ko jàpp waaw moom moo ko moom waaye boo ko dàq mu gis seen dana ci am xaq waaye borom kër gi ko moom mu ne wa damina li ma dafa wuuteeg li ñu bokk bi sax wa damina warloot na ma dé est ce que dégg ngeen ko wa damina warloot na maarum ajrom ab kanatu am kanatu koo xam ne jàppale woon na ko zakatuhu reyam yaa ngi ko ren romb mu laas ci buum bi ba war dee ba xarandi ko nga xam ne yow mën nga koo rendi wala xam waa ji daf koo jàppoon yeew ko wala lu mën a doon rek nga bàyyi bañ koo rendi mu dee borom ñu fekk mu dee كان مقصد بأنه صادق أكل وظاهر أنه يضمن ولو أكله معتقد أنه متأكد من كذلك بأكله بأكله راقي فلها خلاف أكله مغصوب له مغصوب في عصوب لا يجمع المقاصد لأكله في الغصب قال هو بالحرية الآخرة إذا أكله ربه أعظم من الغصب بشكل القرآن دي من القلق اللي بدأ أنا في لا في نوم بهم مش بيقولني يقول لك فتل ولا فت ولا جل رب بكو يجاب دفع في بكو جاب تي بني بكو يتقلي رندي ولا مو يوتو دارد léegi nag mu xarandiku ba war dee waa ji romb ko fi seetaan ba mu dee dana fay borom kaa ko la seen waa nekk lu tax waaw lu tax fi mu ko teg fuñ ko teg fu déer lañ ko teg
dafa seetaan ak lan moo ko jublu.
kon waaye loo ngi si innamal mu'minina ikhwatun wa tarkul muwaasaati man xaw ma àggagun nañ ci xaw ma jàngoon nañ ko mel nag tey ñu jam nit ki yaa nga amee sa benn morso wala sa chemise la wala boo xam ne mën nga koo ñàkk gën a wàññi rek ñu jam ko deret ji di suñ ko takkee waa ji dana deret ji dana dal tey nga la am ko yow ñu ñaan la ñaan bañ mënuñu la dóor nangu ko mu dee danga ko dee ñu ko nga yor ndox mu mar mar bi di ko bëgg a rey nga lànk bañ ko ci may nga ne ko dama koy jàppe wala moo la ko joxe mu dee waaw nga nga bañ waaw dañ lay arrêté waaw waaw déli la déli la
non assistance à personne en danger.
lépp lu ñuy yoonal lu ñuy légiféré te mu jub jaar ci yoon daan ñu sàcc ko lislaam ci lislaam wala fekk na lislaam waxoon ndaxte wañ ko junni at avant ëpp léegi mu ne
moom moom kan ci kii kii ah ci romb rek seetaan ba mu dee dañu bañ dañu bëgg jullit ñi ñu yëg ne ku ci nekk sa mbokk morom loo lu sa morom war a lor sa morom te xamu ko wala fekkewu ko wala yëg nga taxaw ko taxawaayam dañu bëgg leen ñu yëg bari dañu bëgg ñu yëg loolu ci ñu am sentiment bu dëgër ci ñoom ba nga xam ne leneen itam loo xam ne day gën naa ci loolu bu ñëwee ñu yëg ne ñoom sont engagé xam ne l'islam engagé na leen pour ñu taxaw seen mbokk jullit bii waaw wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu am na ci bàkkaar ndax seetaan na ko te waru koon seetaan waru doon seetaan intérêt jullit muy dem yooyu yëpp mën na yee ñu ñu bari ci mbiri l'islam ina mu mun dafa dafa danger waaw nga wan ko gannaaw waaw nga duma ko foofu ci yoon ci la nga waaye léegi boo ko defee ñu yóbbu la police xaleel ci yoon bu ko fekkee muy def loo xam ne dana ko lor wala lu bon la wala loo xam ne day yàq yaram yaru di ko la wala yooyu war nga ko dimbali taxaw taxawaayu papam wante nag léegi moom kenn yar nootul ñu bañ ko yar mën nga mën ngaa fekk seen rafet ñu suur jàpp nga ren ñu mundu ñu fay waaw waaw da dañ ñuy fay ku la ren parce que dañ ko bëggoon jàpp noonu te ki leen wul ñun bëgguñu ko woon rek xaw nga indi ay seede wala ñu ñu taxaw ne dafa dañ ko dee te boo defee sax wóorul daañu ko nangu wala dee dégg nga bu demee ñoom sax jubluwuñ ci idée yi dañoo bëgg di ko garder di ko jaay noonu.
man waaw loolu dama xalaat waaye gannaaw moom mu aaju mu wóor na ko ne bu romboon bàyyi ko rek mu dee dana kon wóor na nag bu dee kee dana ko ñàkk di ko lekk xam nga loolu est ce que loolu bu ko yoon àttewul woon sax jaadu na wala jaadu jub na wala jubul nga romb yëfi nit wala nit ki ci boppam mu nekk ci danger nga romb ko dem ah la bu tax mu'tazila yi ne lu rafet ak lu ñaaw xel mën na ko xam ahlu sunnat moom dañu ne lu rafet mooy li sharia digle lu ñaaw mooy li sharia tere ñee ne xel kay am na yu rafet yoo xam ne xel mën na ko xamal boppam sàngaam seet werante bu gudd la monsieur al mustasfa am nag ñoo xam ne nee ñu léeg-léeg aada dana rafetal lu ñaaw dana ñaaw lu rafet da nga dem ci réew moo xam ne lii nga rafetlu woon fii dañ ko fa ñaaw wala ñu rafetlu fa loo xam ne boo dikkee fii yow dañ koy ñaaw fii dañ koy ñaaw mooy wax ci al mustasfa muqtadila قالوا إنا نعرف الحسن من القبيح فالشرع لم يحسن الحسن إلا لأنه حسن ولن يمنع الشر إلا لأنه شر فالعقل يستقل بدرك الحسن والقبيح وضربوا لذلك مثلا الإنسان يمر على شخص آخر في بليته فهو لا يعرض عنه فيجد أنه من الحسن أن ينقذه من تلك البلية حتى ولو لم يعتقد أصل الشرائع لينتظر مصوبة فإنه يحسن في عقله الإنقاذ ويستقبح يستقبح الإعراض لأنه يقدر نفسه في تلك البلية فيقدر نفسه معرضا عنه وعن إنقاذه فيستقبح ذلك فيستقبح من نفسه ما يستقبحه من الرجل الآخر الذي أعرض عنه وهو في البلية ولم ينقذه ولم يتعرض له لكن بعض الأصوليين يصرون على أن ذلك إما أصله أصله التدين وإما الأغراض ndax faw li nit di jàppe lu rafet it fekk na gannaaw diine moom yàgg na ci àdduna bi moom doomu aadama anandoo ci ci àdduna ndax aadama mi njëkk di nit ñëw fii diine la àndaloon yonent bi ñu ne kon jeexitu yooyu ñuy tere ak yi ñuy rafetlu ba tey mooy nekk ci nit ki te mën na bañ a xam sax ne jeexitu loolu la loolu mooy seen seen coow lu bare bare bare bare ci ne doomu aadama daal mën na xam lu rafet ci xelam rek ñu ne su juddoo woon foo xam ne sharia mosu fa wàcc diine mosu fa am est-ce que dana xam lépp lu war a baax ak lépp lu war a bon mu xam ne lii bon na lii baax na ñu ne waaw waaw
foofu moom bu fekkente ni suñu borom teqale woon mbir yi maanaam teqale woon lu baax ak lu bon ndax nit ki moom mën naa ci moom boppam rek xëy xam lu baax ak lu bon.
waaw loolu mooy coow li.
parce que hadis boobu dox ak ismu.
ma xaaka ak ismu la. dañ yettal yaa alayhi nas.
loolu méngoo na am.
waaw parce que foofu itam fekk na nit ki nekk jullit ba noppi ba nga xam ne moom yaataqidu wujudal ismi al masubati fa ida faala xasanan fa huwa yantaziru al masuba fa ida faala charran fa huwa yaxaafu min al uquba إذا فالضمير الذي هو بين جنبيه يمليه إملاء إما إذا إذا ارتكب فاحشة مثلا فالضمير في قلبه يؤثر فيه الشريعة فهو يعرف أنه فعل شرا وسيئا قلنا لو فرضنا أن الإنسان لم يولد في بلد يعتقد الناس فيه أصل الشرائع هل يميل ضميره إلى الحسن ويستقبح ما هو شر أم لا فهناك الحساب لا loolu bu moo tax nag ñu ne xamul kon doomu adam bunul xam budul woon ak sharia yi xamul lu rafet ak lu ñaaw lu dul bii bi mu nekk maxit bi wala wasab lu ñu rafetlu rek bu juddoo day jaar ci loolu moo rafet lu ñu bon lu rek day jaar ci ne loolu moo bon
ci ci ci milieu boo dem bii biir boo dem. da koy def ñu mel naa loolu yooyu si la sama xam yow ci dañu ko gën a gën a def nii. mu ngi dégg.
raq la raqatul jinsiya yërmande kooku moom du looy xam waaye sentiment la looy yëg. bokkul loo xam ne sa xel a ko liggéey ba xam ko waaye da nga koy yëg mu ngi mel ne nit ki waxoon mu nekk ci muy bëgg a daanu ci kàmb safara gi. jotewu leen dara xamuloo ko yaakaaruloo ci sax waaw ku la gërëm. nekkuloo koo xam ne kii mutu dayin nga ba ngay jàpp na da nga ci am yool inqas bi nga koy def da nga ci sonn waaye teewul coono bu bépp da nga la ko jaral lu tax reqa bi maanaam yërmande bi nga ko yërëm noonu waaw faj ko waaye et puis bu ñu amee intérêt ci supprimer ko ñu supprimer ko ci saa si immédiatement te jàpp nañ ne loolu c'est logique c'est normal parce que dañ naan chacun défend ses intérêts bokku la xel
sentiment dang ndax ki nga xam dafa romb léegi rab bi fiir ci fiir ci fiir bi jàpp muy bëgg a dee léegi nit ki est-ce que mënul def benn xalaat ni su doon rabal dana bëgg ko rendi waaw waaw comme su doon rabam dana bëgg ko rendi waaw kon nag xelam mën na ko poussé ci li nga xam ni rey rey rey dafa mel koy rey boppam rek dafay jël boppam fekk ci place wàcc loolu moo nekk si al mustafa min ilmi al usul si yi xasaar yi di récité muqtasile yi dafa ne li an al insana yuqaddiru nafsahu fi tilka al baliya wa yuqaddiru al axara mu'ridan anhu wa an inqaasihi ثم يعود إلى نفسه فيستقبح من ذلك الشخص ما يستقبحه منه فيستقبح من نفسه ما يستقبحه من غيره ثم يدفع عن نفسه ذلك فينقذه ولو تعب بإنقاذ ما يقول نفسه lépp nag moom diine koy indi di nit ki bu xamee ne diine daf ko sant li mu yéene boppam mu yéene ko mbokk jullitam yépp kooku moom da ngay daal di xam ne sharia la ko sant waaye du caa jëm ne yow yaa xam bu bu benn sharia mosul woon ñëw ci adduna nga toog rek doo mën a xam loolu ñoom daal seen coow mu ngi ci ndax alxasan maa yastaxsinuhu al aqlu wal qabihu maa yastaqbixu al aqlu am al aqlu laa yastaqillu bi darki al xasani wal qabih fa inna shariata hiya allati tastaqillu bi dalika am la فذهب المعتزلة إلى أن العقل يكفي في معرفة الخير والشر ذهب أهل السنة إلا أن العقل إلى أن العقل لا يستقل بذلك وإنما الشريعة هي التي تحسن وتقدر حتى أن الشريعة لو قبح ما نستحسنه لكان ذلك قبيحا ولو حسن ما نستقبحه لكان ذلك حسنا mu jeex rek mu jeex rek waaw ni ko saayir waxee di ci lay laa léegi maanaam bu ñu seetee par exemple ci ci ci soiru l'islam xam nga bi ñu dikkee bi yoon sa sol dikkee alxuraan am na yu mu tere yoo xam ni nit ñi dañ ko daan jëfandikoo daan ñu war a xel waaw maanaam da nga daan gis ku ku sëyeeg maanaam rakam wala yu demee noonu. yooyu bu doon tere. waaw nit ñi ko doon def te loolu amoon nañu xel.
encore plus ku jur doomam mu nekk jigéen mu gas ko suuf. te loolu booba dañ ko rafetlu woon ndax dañu ne daf lay indil gàcce daf lay indil nàngam loolu rafet lañ si jublu lan defe nañu moom la. wa idal mawudatu su'ilat te ku leen bi ay zanbin qutilat.
waaw.
du caagin rek bu ko fiir gi jàppee maanaam su fekkee ne xerandiku na wala mu defe ko noo xam ne mu ngi bëgg a dee nga xam ne soo ko rendiwu rek day dee te mu dee borom ñàkk ko dootu ko lekk ndax medd lay doon. da ngay teq pour mu dem ba tey nga tooñ borom yow da nga ko fay nag yow yaa ko d' accord d' accord fàttali garab bi waaye da nga ko fay te pour mu jàpp borom wi rey ko lekk ko dagan na fekkonte ne lu araam la def waaw. fekkonte ne dafa jàpp rob rek pour fooye ko rey ko yooyu wala xor ñooñu ko loolu nga def moom xeet li la da nga am tuyaaba ju bari waaye comme moom daf koy utiliser te yàlla daganalal ne ko ko rob bi nekkul luy bëgg a dee nga romb ko rek da nga tooñ nga yooyu ko dàq ci bi mu dem da nga tooñ bu ñëwee fay ko de yàq nga këy ah xale yi xale ñoom dañuy rey pour foo am na si ñoo xam dañuy fiir pour fo de xanaa bu dee sa doom ak yooyu de waaye bu dee keneen day mën na la indil problème waaw am nañu jënd di bàyyi ñu naaw waaw am na ñu koy def am na ñu koy def yu demaa xam nga yooyu yëpp nag li ci araam mooy nga xor ma ñàkk ko waaye su fekkee nit ki daf koy lekk mu jàpp ko rey ko te bu mu koy jàpp wala bu mu koy rey pour lekk tax moom dagan na wala xad karam na bani adama suñu borom dafa daganal doomu aadama yi ñu utiliser yeneen dundati yi ñuy war ñu di leen war yi ñuy lekk ñu di leen lekk yi ñuy sëf ñu di leen sëf te dara du leen ci fekk ndax mooy dëgg ndax moom la yàlla def yàlla def nag moom yàlla def mooy dëgg lu moo tax ñoom ñoom yem ci bakkan ñoom ñoom yem ci yàlla te lépp loo gis mu am muy dund yàlla bëgg na ko bëggu sa yëf bi nga moom bëgg bëgg na ko bokkul ak yeneen ñaari bëggeel la bëgg googu nga xam ne nit ki wala ku mu doon yëfam nga xam ne lii alalama kenn sëñ ci def dara loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam mu fàtte kan la ci yéefar yi xama suhaylu ñu am rek wala ñu mel noonu nga xam ne dafa ko daan saaga di sabote lislaam di wëlbati nit ñi ñu ne ko jàpp ko nga seenti bañu kanam yi comme xatib la woon ko mën a wax du taxawati mukk di def ay xutba di la ŋàññi mu ne du ma ko mettital suñu borom di ma mettital nga gis kon maandu suñu borom bi xam ne suñu borom kon lépp lu mu sàkk rek nit ki bu ci amul njëriñ loo xam ne sariya dagana lal nag araam na mu rey ko lu mbaam foofu mi waxoon sax ak lii lore waaye rey rek pour sa fantaisie bopp moom araam na ak lu mu mën a doon ak lu mu doon rek nga wala même ñax yi sax nga di ko dagg te doy woo ko dara araam na ak xobu garab garab gi ngay romb ngay rocc waaw bu soo demoon ba ci booru géej ngay jàpp sax nga jàpp nga nga jàppe lu ëpp ndax ne géej gi du jeex def nga lu ñu tere ñu dem mu ni kon wa taraka wa taraka de tam bàyyi mu ni naka noonu lu mu la ka tarki taxliisi mustahlakin naka noonu bàyyi xet li loo xam ne lii dafa nekk ci biiru alko dafay alko ji min nafsin moo xam bakkan la aw maalin wala alal mënoon koo def taxliis bi yadihi ak loxoom aw shahaadati wala seedeem aw bi imsaaki wasiqati waaw ba tey beneen masala waaye ba tey igul si même di ñëla waaw comprendre ngeen sax loolu aw bi imsaaki wasiqatin dafa téye nopp bi bi ñu bindoon ak nit aju ci nga jot ko war koo transmettre nga téye ko ba xaq faat aw tax ci a wala nga dagg ko booba aji bàkkaar nga aji warlu nga aji warlu nga bu dee bakkan duñ ko xam naa duñ ko mën a yëgal ci xatlu am din waaye xatlu xata in maanaam dëyaa ci war ak yooyu moo xam ne bu fekkee ne mën ngaa sowe loolu moo xam ci sa kàttan bopp sa loxo wala sa lamiñ yaay wax woote ji wala nga xam ne da nga nekk nit ku am daraja ku am prestige nga mën a dem intervenir wala nga fàq ci sa alal bu ko defee loolu lépp nga mën ko defloo ci ko lu mu ci mën a doon nga mën ko defloo ko yow yaa rey loola yaa faatal loola aw nga bañ aw bi aw shahadati yi wala nga bañ a seede ji te yow kat kii kat xaqam ji mën nga ci sa seede mu jot ko nga toog bañ a dem seede ci ko xam nga seede mu am na foo xam ne benn seede ak ngiñ nekk lu jëm ci alal benn seede ak ngiñ doy na ca bu dee deret kee ko rey wala kee ko jam ñaari seede bu dee moy ñeent léegi bu fekkee ne benn seede yow boo seede si woon rek waa ji giñ dana jot xàq ci alal nga lànk bañ a dem xanaa da nga koo mere wala lu mu doon ko defee de kon yow yaay warlu xam ja dem te muy dëgg mu ne aw bi imsaak seede comme seede fii fii comme sens léeg-léeg moom da ngay seede nit moom loolu léeg-léeg bu si boobu sax di mujj wàcc ci yow ah fii kat moom dañoo joxalul seede am moo tax kenn doxalul seede am booy xamee ne non seulement sa seede bi du am njëriñ waaye mën nga caa loro doo ko dem doo ko dem seede ji ndax lu amul njëriñ ba noppi li ca nga di ca gaañu kaw yoon tere na la ko dégg nga wala ki nga xam ne dafa gaañ nit ba ñu war a moo xam xawadu la fayu wala ci rey wala jam-jam lañ koy jam nga jot leetar bu ne jéggale nañu ko jéggal nañu ko téye ko ndax bëgg rek ñu jam waa ji wala ñu rey ko waaw wala nga daggato daggate leetar bi daggate ko ko defee xaq jooju raw xaq jooju raw yaa koy warlu mu ni wa fi qatli shaahiday xaqin li ci rey nag ñaari way seeday dëgg ko suñ dinaa moo gën a garaaw dégg nga warlu bi nga xam ne alal àq ji ci faat ci rey bi nga leen rey doonte rey bi tëyuloo ko sax wala doo warlu ndax xëy na kii rey bi muy rey mu jubluwul woon faatal xàq ji leneen la woon ndax kon dana dana dana warlu wala ba tey nekk wala du warlu tarab bi ñu am nañ ci démb démb watar bi mu asaat li ma wax nga ko kan
awan jaar watar bi seede attan bi moom ci boppam lay moom moo am dafa fekk ñaar ñuy seede ñu mën a seede ak moom rey leen wala dafa fekk ne fii dafa am bor bu ko nit amee loolu amoon na ñaari seede yoo xam ne ñoo fekkoon bu koy lebal nga xam ne ñu fayal ko buñ demee wax ne amel na ko ku fay ñu fay ko ah fii nag am na mu jotee ñoom ba rey leen xeex ak ñoom rey leen léegi nag comme moom rey googu moom ñooñu rek la la jublu woon rey xamul woon sax xëy na ndax ay seede lañu wala déet ñu ne yoon ñëw ci ñii ne kat loolu kat ah ndogal la ci waa ji musibaam la parce que bi mu koy rey jubluwul woon ñu bañ a ñu bañ koo fay ñu ne ah waaye moom daal jëfama tax xàq jooju faat dana fay mooy tërëb digg waaw wala du ko fay watar ki muwaasaatin ak bàyyi jekkoo mooy li mu doon wax nag dana fa dana kii wajabat jekko boo xam ne war na ñeel keneen mu ne bi xaytin doonte ak wëñ la woon itam boo xam ne aaju woowu ko lool aaju woowu ko itam suba mu wër ko ne dina ko aaju suba dégg nga waa ji dafa am jam-jam li jaay fatin jam-jam mu jaay fa nga ñaata jam-jam am bu ngeen xam ci jam-jam ñaata yéen waaw yéen leen jot liñ leen wax rek ngeen jam-jam bi nga xam ne waa ji jam na ba yax bi feeñ dafa dal ci kaw yax dagg na der bi ak yaram bi ak yax bi nuñ ko tuddee wala muy ci bopp dagg na der bopp bi ba yax bi feeñ moom lañ tuddee moo dexa jaarifa waaye dañ ko jam ci biir dagg mbaq mbaq gi wala yooyu si biir si biir si day dee wala maam moom ci bopp bi ba dagg toj yax bi nga xam ne ñu di ñu génn moom day dee jam jam yooyu yëpp lu ci nekk jam jam benn bokk see moroomam àtte ci yéen jàng ngeen di sànn waaw maa leen gën a gën a yëpp yaa fi gën da ngeen di jàppale wala ngeen di leen nafar bokk bu ngeen dul jàppee di leen nafar di leen yëraat. di leen yër li ngeen.
ma ne bopp yi xaw a fënëf.
bon bopp yi. waaw ma xaw a fënëf.
fënëf ah nan la ci xosaay laa ji nan la ko waxee ci ci kii kii jàng ko tum fa lum ala darsi ma at takraari fii ma xafidtahu bila idbaari fa aatihi bila nizaacin kullaka falay laka sar wal tujawi batnaka ألا أخبروا بأن بأنه أيضا نفور فلا يناله شعفة سبور ولا ينال الدهر بعضه أحد ما لم يهب له الجميع أو اجتهد إلى آخره إلى آخره إلى أبوسي ما أمسى الله من نك لي جم جم جاي فلا nga xam dañ ko war a takk waa ji si biri si du génn ñu ne ko indee waaye sa morse bi ñu takk ko yeele ko ko wala sa buum gi war na li jaay fa waa ji làq bu fadli taamin lekk ba suur lii nga dese waa ji jox ko kii bëgg a dee xiif aw sharaabin naan nga ba mën mu fontoo lii jox ko kii mu ngi bëgg a dee li mu faral lan wa ubudin wala ay kenn néegam bii day daanu ci koom jox ko ko mu sukkandikoo ko wa xasabin wala ay tutarel mu lànk fa yàqaw ba daanu daanu aljidaaru wala hu waaw muwaasaatu ba trop muwaasaatu ba ci la dem nag loolu lépp mooy lu ñu waxoon nag wane na ne jullit bi daal moom boppam bu mu compter boppam rek boppam ak mbokk jullitam fu mu manqué ba mu war cee loru lu mu desal rek mu ko ko jox yow nag yaa jiitu yow moom alal ji yaa jiitu ci sa alal après sa doom sa waa kër waaye bu ko paasee sa mbokk jullit nga ne mu fi teew rek te nekk ci dëkk fi ñu demee ba jullit bi ñuy dagatal muy lekk medd wala muy naan sàngara jullit dañ koo yërëm dundam dañ cee xër ci desal ko nekk di jaamu yàlla kon lu koy rey wala mu di ko lor war nañ ko wattandiku ci bépp moyen muy alal muy coon muy leneen loo xam ne ni borom aajowoowu ko ba aajowoo ko ne moom rek lenn ngi bu fekkee ne da ngeen ko xam nga wax na ko léegi yaakaar bu fekkee ne moom nga da nga koo aajowoo tey wala ëllëg kooku nag duñ la obligé nga joxe ko lu dul bu fekkee ne nag dañ bëgg a dee loolu la donc moom dagal na sax fi nga fi muy boo amee sa ñam wala sa dara nit ki balay dee dana xeex ak yow yoon sant na ko mu xeex ak yow bu la rayoo nit mu ngi ci yow waaw mu ni wala ko ñeel na ko kon dafa soxarte dégg nga waaye nag ñeel na ko maanaam moom mi fab yi fa mu joxe nag